pourquoi xaalis bi ci dugg yëpp ba tey amuñu résultat. gis nañ fi plan décennal boo xam ne presque huit cent millions. def nañ ko ci 767 milliards. oui presque huit cent ah, milliards ba inondation am. Mm. loolu mooy affaire ONAS ma ci profité aussi di lancer wàlle un appel ci les personnalités incriminées par les allocations du premier ministre Ousmane Sonko Ousmane Sonko du n'importe qui. falsification euh, chiffre finance publique dafa am responsabilité bu rëy bokk ak maire bi toog fii ci buntu du jaay gerte caaf wala jaay katam nga xam ne sequl ak Sénégalais yi dara am njaayam dañ ko bëgg jënd bëggul dem doon dem sa yoon. Hmm. Ousmane Sonko dafa nekk premier ministre dajale quelque membre de son gouvernement yëkkati ay tuuma yu rëy teg ko ci ay nit yoo xam ne fa nekkoon ñoom aussi hmm. yore fi ay ndombay tànk sur la confiance di président lequel président a été élu hmm. par les Sénégalais kon tey dafay jaadu boo amee tuuma yu rëy yu toll noonu ñu génn ko li ñu gënaloon mooy xaar rapport cour de comptes nga xam ni moom politique wul xeexul ndax raf ñuy wax ni doon c'est pas tout vrai ku sa wujj di sëlëm doo seet xawma kon bu fekkee dañoo ne ci biir contexte Ousmane ko war a nekk tête de liste buy dem en compétition ak d'autres listes yoo xam ñii ngi tuumaal daanaka ña nga ca wala ko. mën naa indi jékki-jàkk ñu ne affaire de politicien la moo tax li ñu gën a loon ñun mooy cour des comptes nga xam ñoom politique ñu politique ñu ñoom ñu génne seen rapport ñu tënku ñun ñëpp waaye dans la mesure où le président la le le premier ministre moom jël na responsabilité am te xam li ko ci mën a fekk jël tuuma yu toll nii teg ko ci ndodd ñu fi nekkoon ay njiit tey li ñuy xaar ñun tumal mooy ñu génn ñoom it indi seen part de vérité tontu ñaar ñi benn la ci mën a nekk benn soit ñu ne ay la yéwén li Ousmane Sonko wax ne dëgg la. waaye bañ koy def de fii ak fii lañ ko tegoon bu Sénégal yi xoolee muy seen njariñ amaana Sénégal yi sax def tolérance dañu naan loo xam ni jaaduwul. waaye situation tax mu jur ñu njariñ loo xam ne mënuñ muñ la ko ndax njariñ dama jur kon yaa ngi dégg am déet. wala lay yi ni indi convaincre Sénégalais yi Sénégalais yi jëfandikoo bànqaas bi ñuy wax justice. daa daan leen ba lii keneen dootu ko def su boobaa nag la njëkk a jaadu mooy njiitu réew mi jël baleem ba te génn ci administration képp koo xam ne sa loxo taq na ci yu mel nii. sa xel dafa ñaaw ci li fa ah, Cheikh Diba des Cheikh Diba ak ñu mel ni moom parce que luy su fekkee dëgg la am na ñu ma gisee ci wetu njiitu réew mi ñoo xam ne seen loxo génn ci kon téye ñenn ñi Cheikh Diba c'est un gars qui ko donte sax miinu ko waaye damaa rafet moom jot ndax damaa dégg ab taalibe la mhm. dama ragal ne ab taalibe murid nga jàng ci sëriñ loo xam doo def yu mel nii ñeneen ñi ku ci mel ne ay ay ay ay élégant loola et administration bi mi ñu fi nekkoon ñu fi nekk ba tey ah. bu changé lu ci ëpp bopp yi ñooy changé rek mhm. mais tey boo demee dans l'administration financière ñi nekkoon ministère des finances ñoo fa nekkoon rek ba tey kon na njiitu réew su fekkee loolu gaa yi wax am na acte bi mu war a njëkk def mooy képp koo xam ne nekkoon nga ci station boo xam lu mel ni mën naa am. Hmm. nga nopp te sa responsabilité nekk ci. dama la ciy jël dama la jël sa place moo tax ma ne bale bokkul mun bale ba mënta ñàkk wala bokk ñu tubaal génn ni te ak ay firnde que ni lii gars yi di ay waxee xale la wax soo waxee xale waxi waxi sareet la wax waxi picc la. ku daanu ci sareet. wax ku daanu ci sareet su boobaa nag askan bi ñoo xam ne dañu suñu njiit yi dañ leen a fal jox leen avion ñoom ñu bàyyi ko fa. di yëg ci wax ku taane ko sareet ñu tàggoo ak ñoom kon dans tous les cas mbir ma moom génn leeral mënut a ñàkk moo tax ñuy profité ko seen bii di ñaan ministre des finances yu ci mel nii période bi ñuy visé bokk yu ci mel nii Abdoulaye Daouda Diallo yu ci mel nii Moustapha Ba ak ku mu waxatee encore am ñeneen ñu wax ak moom Amadou Ba Abdoulaye de Diallo ñu génn mën a leeral mbir yu mel nii bu leen kenn gëmloo nii non nepp leen ci rek kii yéen a ko ëpp dayoo déedéet suñ ko su dee sax jàpp nañ ñu ko ëpp dayoo man gëmuma loolu waaye ëpp ñu dayoo askan bi or te askan bi moo soxla xam fan la mbir yi dëgg yi féete ndax olof ko dafa ni seytaane der waxul dëgg waaye yàq na am xel. gis nga tey jii bu ñu doon wax ñu ne sa chauffeur bi sàcc la kilifa taxawaloo kilifa encore une fois ki wax du n'importe qui taxaw ne sa chauffeur bi sàcc la. moo sàccoon diw moo sàccoon lii moo sàccoon lële nga gëm ko ñàkk ko gëm di nga bàyyi xel kàddu googu bi boo toogee sa sacré sa xel dem ci ni eh ki ma ko sàcc kon ndax lan yàq nañ sa xel ki sàcc la loo ko ñàkk gëm ñàkk gëm ñàkk gëm ñi tamit noonu sa benn grand nuuru daana wax ne ba sa alal réeree koo xool rek sàcc la lay nuuru rawate nag rawate nag ku ñu mën sa jiñ sàcc <laughs> donc tey ñoonu nos anciens dignitaires là mm. amuñu droit tey contribuer ci apologie li ñuy wax apologie euh, répondre euh, par par par, par la nargue xam nga tey boo seetloo mooy xew ci mbiru Cheikh Tidiane bi xew ci mbiru Azer bi dafa ma léegi suñu njiit yi bees yi bu ngi tegee ci ñoom tuuma dañuy préféré waaf. ba bàyyi mu jàll bàyyi bàyyi coow li jàll. kon ñee aussi bu ñu leen ñu waaf bàyyi mu jàll dañuy érigé léegi ci réew mi waaf. Mhm. ba sax ku ñu jàpp sax nga sàcc dara ñu tumaal la au lieu nga tontu doo tontu kon kon soit pas gêné demee ñu dem tribunal wax ko dara posé question mu toog jàpp ñaar doon waaf. danger bi mooy lan ku ma nekk daf lu la neex bu ñu la waxee sàcc nga wala tumaal la nga waaf mu jàll il est hors de question ko waaf di am doole fii ci réew mi moo tax ñi nu tumaal tey dañoo war a génn. gindi askan bi bu dee li ñu wax dëgg la ñu wax ñu fan lañ ko tegoon dañ koy def après pour bi apprécier bu fekkee du dëgg dana tax aussi bi xam yan genre dirigeant la am ni kon ndaka suñu njiit yi ñun. Hmm. attan nañoo wax ay sos yu toll nii nañ ko tàggoog ñoom. ñu taxaw tuuti ci mbiru Azer lan ngeen ci gis lu euh, tey seen xel ba tax aussi ngeen sumb boobu combat même si euh, ki nga xam ne moo ko jiite tey euh, Jean Michel